lu toll ci semaine dem bi ak dikk bi taxaw fii ci Sénégal depuis àllarba ba léegi chauffeur si ak transporteur yi banque seen loxo ngir dogal bi état bi jël ñoom ñi leen nag di ñaawlu bi leen mbir. déclaration yu état bi defoon point yi ñu mayoon yooyu leen seet na seet na ñun attanuñ ko te concertation nag la majeure partie suñu kilifa nee na ñoom laajuñ leen si waxuñ leen si dara ñoo tax ñu ne ñu nanguñ ci loolu. ñun loolu rek la ñuy sàkku grand guerre yëpp sax si table lay mucc. ñun na bëgg bo ñu defaral suñu yëf nga woñu ba ñuy ñëw wo responsable ni ah accident yi de metti na loolu laa waroon njëkk sax jaale nit ñëpp ñi gañu waat dem ci accident bi ta xamna mbir mi ci njabootu transport la dal ñi ngi jaal ñëpp ta kenn mënul wax responsable di ñu ci génné kon ci leen bok kon nak ñi ngi metti lu ñi ci ñak seen bakkan di jaale suñu mbokk sëwër bi ci gañu ay mbokam di massaw diko ñaanal yalla yalla xare ko àjjana ak ci ñak bakkanam loolu laa waroon léegi mbir boo ko yoree nit problème am dañuy seet nuñ ko régler situation bi fii kenn bëggul grève mais boo demee nag ba sës amatoo foo jëm li nga mën mooy benn point de guerre nga am muy grève il faut que nga wax ko tey jii bu ñu woowoon ñu waxtaan ñu trouver solution ñu ñu dindi moo lever mot d'ordre bi ku nekk xëy liggéey mais nag comme que loolu amagut waxtaan agut xëj na li ñuy teg metti na nee nan am na lu ñu ci teg sax mais ñu gisuñu kayit gu koy bu koy firndeel nan ñu won kayit. ni ko génnee décret ne lii ak lii ak lii lii lan leen tere na leen ko nan waxaan ah mayaat nañ leen lii léegi léegi léegi lii ci des da ngeen koy appliqué ku nekk yor sa bos. boo gisee ñuy grève li ko waral mooy comme danoo jàpp ne accident yi ci chauffeur si la ñoom loolu lañ wax daal di jël ay argument tegal ko gars yi argument yi ñu tegal nag moom la gars yi attanul moo waral ñuy grève buñ ko attanoon tey kenn du leen dégg li leen tegal moom lañ attanut oto yooyu mënuñoo teggi porte bagage bi dindi versailles yi. yokk gasoil bi yaa may dégg te maanaam dara dara dara loo xamante ne nii tegal nañ ñu ko fa amul lu dul xëy rek tegal nu décret boobu moo tax chauffeur si ne dañuy taxaw ñoom bu ñu waxtaanee ba juboo xam ne am na ñoo muy jinan bu ñu ba juboo amaana loolu doom ndax gënalul kenn bakkeen yi di rot tam lu yàlla dogal la waaye tamit kenn léegi nag danoo war a def noo xam ne nii c'est système boo xamante ne nii dañ ko mën a fal ba man bu mbañ fee jaarati mu bañ fee amati sax moo gën pneu bu bees mënuñu koo am kenn mënu koo jënd fii transporteur yi daw fii Sénégal fii kenn mënu fa jënd pneu bu bees pneu bis bu bees xamuñu prix bi xam naa loolu tax ñu wax loolu suñu xamoon prix bi moom duñ ko wax. muy wàllum grève dañoo amul pexe moo tax nit nag bu dee liggéey te tout le temps état bu mbir xewee war nañu woote consensus waxtaan ah lii kat suñu kaw la dal te ñun ñëpp ñoo bokk réew mi kaa la ñuy toog waxtaan maanaam lii di xew lan moo waral lii. parce que daan naa dégg ci ci sunu sunu kilifa ga marabu Cheikh mu daan wax naan réew mi nan ko sang bala moo sangu boppam réew mi fi mu doon jaxasoo na chauffeur yi amatuñ espoir xamatul lan la lii nii jaaxal na ñëpp accident transport pour ñu am li bëgg fokk ñuy yëkkatee ndoo di tegandoo grève kenn bëgg ko ci réew parce que baaxul ci réew day day delloo économie bi ginnaaw ñun bu nu sañoon duñ dem grève mais état bi nga xam ne moo nu jaboote ñun ñi ay sénégalais. te bàyyiwuñu xel benn yoon nag tout le temps rek day jël yat rek bëgg a jël suñu kaw dóor loolu moo tax ginnaaw nag amuñu fuñ ko jooyee ah ñu am yaakaar rek dañuy taxawal oto yi mais grève bi ñii nee nañ d'accord ñii nee nañ d'accord man mii day wax dëgg yàlla ànduma ci grève parce que wax dëgg yàlla grève baaxul ci ñun. ay benn benn lan ñoom danoo danoo xaritoog état ay benn benn lan mais bëriwul de te xam naa ne képp ku ne doo daw it incha allah rab buñ ca àggee yow da nga ne doo daw ci salaam lañ la yem sa jëm oto bi du daw oto moom du daw. seen oto yi ñu moomal seen bopp ñoom duñ daw de dañ naan nag bokkuñ ci grève bi nangam nangam ba ñëpp dégg leen rek waaye ñoom duñ daw. ñoom nee nañ grève wuñ ñun dañuy grève nit nag du moom otoom xanaa gaara ko nga ne ko par force da nga liggéey ñoom bu leen neexee nag ñoo xam ñu dawal seen oto mais ñun kin àndal suñu syndicaliste lim ñu joxe ñun moom la ñuy ba leneen di am ñu leen ciy ñaan yàlla nag nekkoon fi di barre de fer wala def dara dañ ñaan yàlla solution am Sénégal jëm kanam. kenn ñaanu yàlla ku continuer bakkan di wadd nit ñi di dee duñ ko def nag boo ñu mel na ñun loolu ñoruñu wala intéressé wuñu faale wuñ ñiy dee suñuy poos la ñuy xool loolu kenn du ci ànd. grève transporteurs yi ak chauffeurs yi jural njàkkare askan wi yeewoo fii ci biir réew mi ndaxte dem bi ak dikk bi yombul benn yoon ñoom ñi leen nag di chauffeur si grève bi gënalu leen benn yoon waaye nag mesures yi état bi jël nekk na lu metti seen kaw.